te alxuraan daawuteeg yeneen wax yi daawuteeg wax yépp ci lépp la mbindiinam rasmu mbindiinam bis boo ci bëggee topp xawaay yi nga ñu noonu ci mbindinu arab da ngay daal mag ñi nee ñu bari sukk juróom baabu faabu jaabu tabawu wazu boo ko sukk da ngay daal kon noonu la amee njaay njiinam booy xëcc doo topp rek sa neex bu baax bay xëcc déedéet dafa am fu muy yem ña ko tuxaloon noonu lañ ko tuxalee joxe wàll ko noonu kon nga war a am maanu yow tam joxe ko noonu yéen ñi yàlla sax moom dimbale ngeen am benn donga ñaari donga ñetti donga nañ ci yéen am na ñoo xam ne ni fekk amuñu donga yu bëri duñ duñ firi benn donga laa wax ay ñaari donga ñooy la ay yahdi allahu bika rajulan ndax def waaxidan rajulan waaxidan génn waaye donga mu jàngi ñëw alxuraan kër doonte naa la ci benn donga am nañ sax doy maanaam bul ne faw ma am mbooloo xel bu baax baax ngir yàlla ngir yàlla ibnu kathir rahimahullahu taala ca tafsiram ba xam ne kullu shay haariku bi laaga da caa indi mbir mu rafet mooy amal yépp baaxi la lay doon illa ma urida biha wajhullahi taala loo xam ne yàlla rek loo lay jaar kon maa ngi koy dégg su jamono ji nag jamono ji la yoo xam bunt bi ngay njëkk a ñàkk mooy ixlaas wala yàlla lay taala فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص الاخلاص الاخلاص يا زملائي الاخلاص الاخلاص يا زملائي اعانكم الله تعالى على الاخلاص بلن بلن فضل محمد بن كويلي بدل موي نين يامل نيغا خامل دانيو ام بجانس سير اك ني امكوش لغي نيوي غنا اديو léeg-léeg yàlla nattu maa ngi koy ba di dégg suñ suñ daara yi xam nga man ma daara laaj wala ku xir lool ci jàppale yow daara ji ba noppi jox la doom rek ba toog ñu ànd ak xel lool xam nga daara la wala wala wala yeneen daara yoo la ak koo xam ne sëñ bi du la jox dara doon ne xel lool nattu yàlla ñëw na ñattu yàlla ñëw na bu la yàlla dimbalewut nga ne ah waaw kii moom gannaaw day jàpp ci daara ji te doom wax dëgg xel mi neexul kon téemaa jël saa yitte yëpp jox ko nga fàtte kee nga xam ne moom yow kooku sax buur la ci yow nga mën a am yàlla maa ngi koy bàyyi ko xel bu baax yeneen yeneen yeneen tomb yi nga xam ne moo ci des dong yi laa koy dégg wallaahi suñu jamono jii dañu mën yu lay wax yàlla na am ay mag yu ñuy jàpp ndaw bu amul mag nekk wetam rek boobu mu maam. man damay fàttaliku benn bis ma ñëw sama baay di nga wax ne ma dafa am ku fi ñëwoon ne daa bëgg ngay def ak waxtaan ci jenn jumaa mu ne ma waaye kooka daa am kàddu bu mu wax ndax da ne ba ñuy tànn imaam tànnuñu ñi sant Njaay tànnuñu ci kon war nañoo am ku sant Njaay koo xam ne day feeñal waa Njaay mu ne ma ñoom liñ tudd ak wanewu lay duru te man wanewu daa nuroo waru ne ma bàyyi ku dem baygu de wanewu dal ngoo wamu moo tax reew te wanewu yomb na ci suñu jamono jiro yaa ngi wanewu de وكفى بالله شهيدا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أولم يكفي يلا ما يرضي بك إخلاص